Yeah. mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média une heure trente neuf mooy euh, doog a jot ñu jàll nag euh, ci euh, ñaareelu xaaju jotaay bile comme ni ñu leen ko diggee woon tey nag ki ñuy waxtaanee defe naa mën nañ fee fanaan di ko waxtaanee benn émission kot du doy ndax fi mu jaar te li tax mooy firnde bi di ngeen ko dégg bu ca kanamee tuuti ak gan gi di Cheikh bu Diop waaye ñu dalal itam sunu wayjur sunu kilifa di Cheikh Thierno. Soxna Ndiaye euh, ñu ngi lay nuyu papa gërëm la et di jéggalu ci yàgg ci toogaay bu yàgg bi Cheikh bu ah ñu ngi jéggalu ak ñi nga àndal ci toogaay bu yàgg bi euh, waaye euh, defe naa ki ñuy waxtaane jar na ko papa ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay bu baax di ñaan sunu borom dolli seen jàmm dolli sunu jàmm doom li jàmm àddina bi te dolli réew mi jàmm ak askanu réew mi nuyu ka xaar nuyu bu baax baax sunu kilifa diine yëpp mm. waaye ko ci Cheikh na Cheikh al Aya mi nga xam ne mooy xalifa rasulillahi fi la ard te xalif général de xaadar mu cheikh taalibi mu cheikh na cheikh Saad bu mu saare nuyoo bi waaye na ko tàmbalee ca kër maamam Seydina Mohamed dem ziyaare ji cheikh haj bu Mouhamadou mi nga xam ne bàyyi la xarit la wóllëre la lépp la mm-hmm. mu baaxe ñu jotal ñu ko xalif ak kilifa diine kilifa aada yi ak kilifa àddina yi. yéen ñi ma bokkal jotaay bi am ci mbégte bu rëy rëy ndax cër dafa for paap. koo yëgul doo ko jox cër. déedéet yëgay jur cër. suma doom ma toog ak moom contentement bu rëy. macha allah mu jur ko nag ci wuy juram. Mhm. ci meen ci geño waaye nag jur ko ci jikko waaye jur ko ci madaxtu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy sama soppe lool maa ngi ak ñi ñuy seetaan ñëpp maa ngi ànd ak yéen di nuyu ñooñu ñëpp macha allah ba ci kanam eh, incha bi ñu ngi lay nuyu yow itam di la di la ziar bi ñuy annoncé ni yaay euh, teew ci jotaay bi ñu bëri sax tëddaguñu donte guddi na euh, ñu ngi ci jéggaluwaat bu baax a baax a baax a baax bàyyi la nga nuyoo ak sunu mbokk yi aoudu billahi samil alim a alcheytani rajim illahin bismillahi irrahmani irrahim sayfuna alhamdulilahi rabilalamin munawiril absari al arifina bi nuuril maarifati wal yaqin allahuma salli ala man la tatanaha mafaqiruhu wa mazayahu alladi ida takallama ruwiya ka nuuri yaxruju min bayni sanayahu sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa radiallahu an cheikhina wa imamina wasilatina ila rabbina shabi muhammad abni shaxsidi muhammad abni shaxsidi bekkayi l kunti Euh, Pape Cheikh ñu ngi lay fay. ñu ngi lay tabarakallahu di nuyu plateau bu njëkk bii ma toogal. di mhm. nuyu waa quartier général yëpp. Mhm. oustaz Assane Seck suma xarit ci suma ndijoor. suma papa alaaj Cheikh Thierno Ndiaye ci suma càmmoñ ñu baax ñii ma toogal suma jigéen ñu baax ñii ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu donte mënuma jaar ci tur yëpp waaye di nuyu moom du Ndiaye xam naa maa ko dàq sant di nuyu doyen di nuyu Alfi di nuyu soxna Mariane borom moom minaatu mënoon nga cee boole góor ñi nag loolu ñëpp ah, kaas di ziyaar ñëpp di nuyu mbooleem technicien yi tey ji euh, doom ju ñëw ci këram la rek mhm. dafa tabaarakallaahu kër gi sunu kër la mhm. ñu ñëw wuy si leen heure bu leen neexee ñu ñëw heure bu leen neexee ñu ñibbi kon amuñu lu ñuy metti macha allah jërëjëf kon oustaz ñu tàmbali waxtaan bi waaw Pape Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani waaw macha allah sultaanul awliyaa yi wa tabarakallahu macha allah di sëtu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni du li mu doonoon surtout Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teewul itam dafa nekkoon koo xamante ni borom xam-xam la nekkoon koo xamante ni ku amoon ay may la ba tax tey jii nii càllal leen ñëw ba fi nga xamante ni fii la ñu nekk euh, cheikh bu wax na ko léegi cheikh bu tey jii nii boo ñu doon wax cheikh Abdul Qadir Jelaani mooy kan lan nga ñuy wax. alhamdulillah. bi ma ubbi sant yàlla. julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. gërëm sunuy way jur di ñaan yàlla na leen yàlla gërëm allah nuyu cheikh seydil haaji mam bu wuldu haj mouhamad wuldu cheikh abou mouhamad wuldu cheikh albun amami xalifatul am li tariqati alxadriya kilifa la mi ngi ci 93 ans te ma nga ñuy seetal macha allah yombul nag nga am sa kilifa mu bëgg la bu mën a waat loolu bariwul mhm. doxinu yoon ci yàlla Muhammad rek la euh, boo demee incha allah na yonent bi daan def heure boo demee war koo gis gis ko mhm. noonu rek la mel mhm. woyof toll ci zahir mhm. waaye diis gann ci baatin nga tudd nag koo xam ni moom moo ñu wax boppam xam naa wax ko ci jataay yombul wax ko ci at yombul ko ci ay at yombul jëmmam rek day jàngale jëmmam rek day jàngale kii nga tudd moo doon rasulullah sallallahu alayhi wa moom wax na boppam nee na xaadir la maa ngi tudd Abdou Khadir ñu ngi may dàkkantele muhiddin sama cosaan moo di jëylaan wala wala kaylaan mhm. ana qaadirul waqti Abdul Qaadiri ukanna bi muhiddin wal aslu kaylaani mhm. Cheikh Jëyli nee na man xaadir la ñu ngi may maa ñu ma tudde Abdou Khadir waaye di ma dàkkantelee Muhiddin sama cosaan moo di jiilaan wala kaylaan mm-hmm. ndax mi ngi juddoo jiilaan wala kaylaan mm-hmm. soo ko defee kaaf mm-hmm. wala jiim boo ci def baax na moo foofu ma nga ca réewum Iran dëkk bu ñuy wax niif waaye digganteem ak Irak aussi 40 kilomètres la donc ci catu frontière bi la nekk Cheikh Jeyli foofu la ganee àddina moom Cheikh Seydi Abdou Qadir Jeylaani euh, ci 471 ci gàddaay gi génn àddina ci 561 ci gàddaay gi bu dee ci calendrier grégorien mi ngi gane àddina 1076 wala 1077 am na werante waaye bii da koy jox 89 ans bii jox ko 90 ans génn àddina 1166 kon euh, juróom-ñeent fukki at la wax dafay dellu si Cheikh Abdou Qadir Jeylaani ganeem àddina ma ñëw ci d'abord lu tax mu tudd mu Muhiddin xam nga mooy dàkkantelam nee dafa doon def siyaaxa muy tourisme tourisme religieux nee na di gis genn góor gu feebar góor gi feebar ba daanaka mënta dox bi mu koy romb rek góor gi ni ko àdduna min nii jigéen ma mu ñëw jige ko rek góor gi doonaat waxambaane taxaw wér ca feebar ba mu dem bay dem mu ni ko xam nga ma mu ni ko déedéet mu ni ko mën a diine dañ ma sàggane woon ba faf ma mel ni kuy faatu yaa ma dekkal yow Cheikh Abdou Qadir Jeylaani nee na lu jiitu loolu kenn daaw ma ko woowee waaye nee na ku ma romb nga ni ma muhiddin yow mi dundal diine tur bi foofu la jógee bi mu ganee àddina teel a xam responsabilité daan na dee yoog yaayam ci waxtaan lu ko jiitu moog yaayam dañ daan waxtaan ndax papaam dafa teel a génn àddina amoon na frère Abdallah Abdallah it dafa teel a génn àddina mhm. Cheikh Dieyli yaayam yar ko ku daan wéttal yaayam la ku ko daan taxawu la un jour moom ak yaayam ñuy waxtaan yàgg na ko wax lu ko jaaxal mais benn bés mu daal ni ko yaay donte loolu taxuñoo jóg damay wax rek ni mu xamee responsabilité lu mhm. ko yaay am na benn bis de nga demoon ca teen ba wuti ndox yaa ngi fàtte addu kalpe bi la dogale woon yaayam defee ni kii day wax waxi xale mu delloo si xelam xam ni loolu amoon na waaye booba Cheikh Jéli ganeegul àddina yaayam ni ko bàyyil sa wax ji ngay wax mu ni ko déedéet yaay dama lay fàttali rek keroog bi nga xamante ni addukal pale ba dogaale na la te yow tiital gi mu la tiital tax nga xëm te pan ba nga yenu woon sax tuuruwul picc ma fukkoon bëti saay-saay ba man la loolu yaay ji loolu la wax yaay ji ni ko ba pare li la li la yee sama laaf laa tooyal ci ndox mi doon la ko tiis looloo la yëkkati maanaam jubluwuma ci wax karaama ndaxte moom nee na karaama nee na ci nitu yàlla yi nee na bu fekkente ni ay bunt la nee na junniy bunt la ne mais bunt bu njëkk bi mooy baabu karaama te ñoom dañ ko seexlu dafa mel ni jigéen buy gis mbaax kon du ñu koy faral di nettali mais bi ko bi ma ci intéressé mooy ni mu amee responsabilité dafay wan sama yaay ni ko yaay maa ngi la doon défendre bi ma nekkagul te bi ma nekkee dinaa la défendre bi mu ganee àddina xam na luy responsabilité dafa ganee àddina rek woor ndaxte lu la koy jox bi mu ganee àddina fajar gi dafa jot yaayam jox ko ween wa Cheikh Abdou Khadir Jeylaani du mooyu ko xam nga moom fii nisfi shahri siyaami kaana mawliduhu wa saama dunar siyaami nisfahu saani moom ci euh, fukki fan ak ñeent ci weeru koor ci la gane àddina mais li ci des daf ko woor lu lay jox preuve ndax foo dem am na ñu mën a diingat mm-hmm. ñu naan lii daal dafa tombe xale buy door a gane àddina ñu koy jox ween mu naan du nàmp xaar leen ba suba suba mu defaat ko te heure dog rek lay nàmp mm-hmm. léegi li firndeel nit ñi ba tax ñu tuddee ko ak di ko way naan foo dafa juddu woor ca déwén si la am nit yàlla yàllaa koy feeñalal boppam ci bu ko neexee mm-hmm. déwén si dañu taxaw ñu am problème mu séentu weer foofu niis ba kenn mënatul a gis jant bi ci biir euh, ci kenn mënatul a gis weer wi ci foofu ca niif mais ñu seetlu Cheikh Abdou Kadir Jeylaani mu def na mu defoon ñu taxaw ñu daal ni yeneen dëkk yi woor nañu deuxième jour bi Cheikh Abdou Khadir Jilani def na mu defoon mujj bi diggante fi mu juddoo ak li wër dëkk ba biir euh, Iran yëpp dañoo mujj ni xool leen ci doomu Umu Xayri Salma saa yu laalee weenu yaayam dog jot na hmm. xam nga yaayam mi ngi tudd Fatimatu bintu Abdullahi Sawmaay ñu tuddee ko Ummul Khayri. Ummul Khayri la mère de la paix. la meilleure des mères la mère parce que yaayam ki ko ki nga xamante ni moo ko jur nitu jàmm la woon yaayam tamit di nitu jàmm ñu tuddee ko yaayu jàmm ji wala borom jàmm ji. Mhm. Ummul Khayri. Mhm. way juróom wu góor mi ngi tudd Moussa Diankiyou Dus. Cheikh Abdou Qadir Jeylaani shérif la ci wàllu yaay shérif la ci wàllu baay. ci wàllu yaayam Xuseyn mooy maamam ci wàllu euh, baayam Xasan mooy maamam te ñaar ñooñu Fatimatu bintu rasulullahi moo leen mais bi gën a am solo mu teel a xam lan mooy responsabilité donn maamam rasulullahi yamul ci donn ko rek waaye ci jëmm ak lépp moom la ci donn li ma ci gën a neex nag mooy woyof la doonne ci maamam mooy nga diis gann ba noppi woyof mm-hmm. moo tax taalibe xaadir du jaay affaire taalibe xaadir du bari tiitër taalibe xaadir foo ko fekk dafa war a suufeel sa bopp ndax ku wàcce sa bopp yàlla yëkkati la mhm. am na génn góor gu dëkk Njaasaan góor gi Abdou Mbaye maa ngi koy ziar de passage mhm. dafa ni ma Cheikh bu xanaa xooloo avion bu wàccee ñu koy xool day rëy lu mu gën a naaw jëm kaw di gën a tuuti mhm. Cheikh Jéy li jàngale loolu xat naa la min jaddihi zuxdan dëddu mi ngi ko doon ne ci maamam rasulullah ka yuusufa fii xosnin soo ko gisee rek xam ni borom taar la mm, mi ngi ko doon ne ci yoon ci yàlla yuusufa ka mis di abi bakrin fii limaani mm. gëm yàlla nag mi ngi ko doon ne ci babacar ma taxaw foofu bañ laaj ma leneen macha allah macha allah am na solo mu mel ni euh, maa ngi gis ne itam mi ngi wax ne bokkoon na ci li nga xamante donte la wax du pour karaama mais pour gën a xamal ñi ñuy seetaan rek ki ñuy waxtaane moom mooy kan li nga xam ne mooy weñ yi da di naaw nii daawul dal si yërëm parce que moo doon maamam rasulullah rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam soo déggee bëggumaa xuus di ci sori yonent bi feeñu na ko daal ni ko anta di xaqan sama doom nga dëgg allahu akbar te xam nga ni yonent moom moo am loolu mhm. weñ daaw ko tom dëgg la sallallahu alayhi wa sallam mhm. ah, mhm. gis nga ci taxawaayam maam Cheikh Ibrahima Fall daan na wax ni di wër di waare ku la gis waaroo ko gën di wër di waare. ku la gis waaroo ko gën. Mm-hmm. am ñoo xam te ne seen jëmm day waare. boo leen nee jàkk rek dellu ci yàlla. Mm-hmm. bu la fekkoon nga am noo mel nga soppi toogaay. Mm-hmm. boo leen xoolee sëgg. ñooñu dañoo jox lépp yàlla. gis nga boo ragalee yàlla lépp lu dul yàlla dalay lay ragal. boo yàlla. lépp lu xool ko ak bindam. jataayam ba muy ca zawiya ba mu nekkoon di fa jàngalee. mujj na bari na taalibe yi di wax ni ñi mu ci ñi mu ci may ndigal. dafa raay seen kanam ñi leen ndax ñi fiy ñëw dama seetlu ni da ngeen leen bëgg a gis te nag nitu kese kese du leen gis. donte ñëpp ay nit lañ. waaye nit ku ànd ak dara ku àgg ci boromam moo leen di gis. wax bari na ci taalibeem yu ko wax nee nañ dañoo mujj xàmmee yonent bi ak yonent yi. comme ni ñu xàmmee yeneen taalibe yi ci jataayu Cheikh Abdou Qadir Jeylaani ndax du wax dara. lu mu tegul ci ndigalu rasulullahi sallallahu keroog ba muy waaj benn mbir rek laa ci indi doomam Abdul Wahab xam nga moo ko jullee ci kaw lalu waajam dafa woo doom ji di ko dénk lim ko njëkk a dénk nee na ko sama doom ixlam anna tarixatana mabniyatan ah, mabniyatun ala alkitaabi wa sunna fa man xaalafahuma fa laysa minna mu ni ko ta fi tarixa bii nga xamante ni moom la moom laa donn mhm. indil leen ko na nga xam ne mi ngi teg tànkam ci sunna ak farata mu ni képp koo xamante ni bàyyi nga ñaar yooyu bokkoo ci ñun de moom mii mhm. li mu doon lu foor la mhm. ndax li mu doon mhm. rasulullah am na ci carte de wasallam lii Cheikh Abdou Qadir Jilani doon muy tariqatul qadriya ñëpp xam nañ ni mooy ndeyi tariqa yi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na ci carte de membre tariqa jibril alayhi salaam am na ci carte de membre mhm. tarixa bi Cheikh Abdou Qadir Jeylaani donn mhm. koo fi dégg muy ba muy baax rek am na ci mhm. carte de membre loolu du ma sori dama lay indil rek waxu mag koo xamante ni ci réew mi boo ko tuddee ñëpp xam ko moo ni tarixa bi yàllaa ko jox góor góor di ko jox góor ba mu àgg ci yonent bi ba ba te jibril moo ko jox kooku mooy xaadimul rasul Serigne Touba commencé ko turam daal ni yaqulu ahmadul faqirul jidda atuubawiyul qadiriyul wirda qaala alfaqiru ahmadul mbakkiyu anhu afa wa rahima al aliyu alhamdulilahi alladi lana jaal silsilatan nanju biha inda al wajal soo ko toppee daf lay indil góor ñi kenn par kenn ba ba ni mu àggee ci rasulullahi kooku mooy silsilatul xadriya la téere bu ndaw la ku ko xool ci xasaayid yi di nga ko gis donc loolu dalil la ku doon lu mel noonu nag da ngaa doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi tëj yonent gi gannaaw moom yonent dootul am mhm. Cheikh Abdou Qadir Jeylaani mhm. bu ko neexoon mu wax ni su yonent doon ñëwaat mhm. ma ni damay doon yonent waaye nag yonent du ñëwaat sëriñ Mouhamad Bouna daf ni ko xad ixtafat xadaman lil Moustapha qadamun lil jayli murshidi xayraanin wa umyaani fu yonent bi teggee tànkam rek Cheikh Abdou Xaadir Jilaani teg na foofu tànkam si waa nubuwata ba mu des nag yonent ka is hat kaana xaatimaha xayril bariyati taha nuru lakwaani yonent bi moo tëj yonent ki budul woon loolu ñu am yaakaar ni Cheikh Abdou Khadir Jeylaani mhm. yonent rek lay doon mhm. waaye nag xutbaaniya mhm. ndax euh, euh, al aqtaab arbaa ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite waliyu yi Cheikh Abdou ñoo jiite xutbu yi Cheikh Abdou Khadir Jeylaani mooy seen xutbu macha allah muy Abu Madian al imam Dasuqi Euh, Ahmad Badawi mhm. Cheikh Abdou Kadir Jilani mooy seen chef ku ci nekk seede nga ko seede yoo xamante ni mhm. bu ñu ko doon wax xajul ci jataay bi mhm. fa tabarakallahu maa ngi taxawaat ba ngeen lay jàpp macha allah bu fekkente ne amul laaj rek ma sërëxal benn ñu dem si insha allah maanaam euh, Cheikh Abdul Qadir Jilani di sëtu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax nga ko léegi donn na maamam ba mu des si leen muy wax tey jii jaar-jaaram si wàllu xam-xam ba tax mu raw maasam dan nga ñu si mën a wax jaar-jaaram dafa nekk yaayam moo ko yar jànge na ci biir niif ñu bari mhm. ba mu am nag 18 ans mhm. ku bëggoon xale la mhm. daf daan def um, uh, siyaaxa waaye moo xale yi ñooy ànd tourisme religieux suy dem rek xale yi topp ko benn bis mu dem ci benn uh, tool bu mag gis kuy sàmm ay nagam benn nag bu jigéen moo dawee ca biir nag ya sababam bi tax mu dem Bagdad lay wax daw ñu naan lu ko nag bi di def ku teey la comme ni maamam rasulullahi teeye mu geesu ko nag bi daal ni ko yaa Abdul Qadir hmm. maa li haza xuliqta wa maa li haza umirta sàkkuñu la pour lii diggaluñ la li Cheikh Jéy li ni tekk di ko xool daal ni lii cax la de daw rek yéeg ci seen kaw étage mais bi mu yéegee foofu ca Iran hmm. mi ngi seen waa waa waa Makka hmm. ña nga nekk ca ca Jabalu Rahma mu daw ñëw daal di songu yaayam ni ko yaay yaay yaay maa ngi dem Bagdad yaayam yaayam jooy mm-hmm. ni ko yow rek laa fi dese sa bay génn na àddina sa mag ji ma amoon yaakaar Abdallah génn na àddina mm-hmm. waaye nag am na lu ma yàlla xamaloon ci yow sa dem bii doom dootuñu gisee allahu akbar li nga doon ne ci sa baay ñeent fukki góoroy or la ñii nii ñeent fukki diinaar mu ni ko parce que juróom-ñett fukk la yàgg sama nga ko bokk ñu xaaj ko ci digg bi nga am ñeen fukk mu am ñeen fukk sama doom demal waaye benn baat rek laa lay dénk bul wax mukk lu dul dëgg bul fen baat bii la ko yaayam dénk loolu bokk na moom itam si ñi ñi ñi nekkoon ci ronam yëpp doon sàkku xam-xam loolu la loon doon gën a dénk képp kuy dugg ci suñu tariixa booy teg sa tànk da ngay waat ni du ma fen muy premier ci tarikatul parce que maamam dafa waxoon ne dañ ko laajoon moom rasulullah mhm. sallallahu alayhi wa sallam jullit dana naan sàngara mu ne waaw bu sàggan jullit dana sàcc bu sàggan mhm. jullit dana njaaloo mhm. bu sàggan fekk mu ngi soonu moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ndax jullit dana fen mu jëkk toog wallahi jullit du fen na jullit du fen loolu moo di li mu daan gën di jàngale muy droit il paraît kese ah. ci loolu la mës di dox nit ñu dox ci droit moom mooy jàngaleem bi nga xamante ni ñëpp ñu bari moo leen ko sopp mhm. moom Cheikh Abdou Khadir Jeylaani léegi nag xoolal yoon wi mën nañ laa wax dara nga fas kaddu ak ku mu mën a doon waaye nga génn war mm. mu wax ak yaayam yaayam ni ko xam nga nu ñuy def lii dinaa la ko ñawal bu doon tey euh, xam ngeen nafa mhm. <laughs> danaa la ko ñawal muy nafa nga def ko ci sa biir yére mu ñawal ko euh, ñeent fukki goroy oor ya ñuy dem ba ca yoon wa moo njëgg mi mu àndal ay addu kalpe dogaale leen soixante personnes lañ ñi ngi rey nit ñi di jël seen alal di ñi di leen dog di leen dogaale ku lu waay yor ñu fëgg ko ku bañ ñu rey la jekki-jekki am ku ko laaj ci ñoom ni ko xale bi loo yor mu ni ko maa ngee ñeent fukki góoroy or waaw waa ji nag daal ni kii daf may wax lu ñun ba ñu dalee agressé ba léegi amuñu ñaari góoroy or mu naan mu ngi ñeent fukki góoroy or mm-hmm. ni kii dama defen dafa àndu àndul ak xelam ñu dem di ko def ba seen wax mu continuer di dox doxina mu teey wa rek ñu koy dem ba nga xamante ni seen euh, nu mu tuddati seen waxtu wàcc jot na ki leen jiite ndaxte diggante bi soriwul 40 kilomètres mais 40 kilomètres booy doxee gëléem day gudd day gudd am ku leen ni euh, waa ji ni leen waaw pare ngeen ñu ni ko waaw mu ni leen kee di dem nag ñu ni ko kee dama deni àndul ak xelam ndax mi nee na mi ngi ak ñeent fukki góor yoo ki leen jiite mu ni wol leen ma ko ñu woo ko mu ñëw ndànk wuy si ko mu daan ni ko euh, nga ni lan nga yor Cheikh Jéeli ni ko maa ngeeg ñeent fukki góoroy or mu ni ko fu mu ne mu daal di xotti yéreem génne ko mu ni ko yow xanaa dangay xaru mu ni ko jullit laa duma xaru mu ni ko xanaa gisoo ni ñu def ñii mu ni ko ahankay mu ni ko xam nga ni ñun ay addu kalpel lañu dañuy dogaale di rey nit di jël seen alal fortune bu toll nii nga yor ko attan koo joxe lan moo tax te ñu lay laaj nga ni maa ngeeg moom mu ni waaw mu ni ko lu xiir ci li mu ni bañ a war sama yaay chef de bande bi nag jullit la bari na jullit ña bari na agresseur yu nekk jullit <laughs> maanaam dellu si mu yuuxu rek daanu ci suuf tan ni ko oh, bañ war sa yaay moo tax ngay tayle sa bakkan mu ni ko naam mu ni ko delloo si nga ma ñun biñ juddoo ba léegi ñu ngi war yàlla allahu akbar naa kóllëre ak sama borom du ko warati mukk yow Cheikh Abdou Qadir Jeylaani na nga xam ni am nga juróom benn fukki taalibe maa ngi ñi ma àndal ko bañ ma rey la ñëpp tuub nañ topp seen ba tey yeggagul ndongo lu jóg di jàngi <laughs> am am am juróom benn fukki taalibe booba ndongo bés bu ma tee laa mu naa ni dee su ko benn mm-hmm. ci yoon mi la ko li yëpp daale mu mel ni kon si gàttal dama bàyyi ko loo fen ba am ko soo waxoon dëgg am lu ko ëpp amul werante mm-hmm. bari pexe nekk ci dëgg ko gën waaw al maktum euh, radiyallahu anhu daan na ko wax mm-hmm. bari nekk ci dëgg ko gën waaw Euh, gannaaw bi la bi la ziyaaree. Euh, di ñaan suñ borom yàggal sa taxawaay. Euh, dama lay laaj lu am solo. Mm-hmm. tudd nga ci benn bi sànq mooy li nga tudd diggante Cheikh Jéeri ak si Ahmad Bamba. di mm-hmm. suñu sëriñ. Mm-hmm. waaye sultaani lawliyaay. bëggoon naa xam lu ko waral. ba pare bëgg naa xam aussi Cheikh Jéeri digganteem ak ku mel ni Cheikh Ahmad Bamba. lan lan la diggante boobu lan moo ko indi. leer. ku baax bëgg lu baax wax naa ko léegi mhm. yaqulu ahmadul faqirul jidda atuubawiyul xaadiriyul wirda sëriñ Tuuba wax na ni moom qaadir la beneen bi ci des def na silsilatul qaadiriya beneen bi ci des tuddee na ko doom mhm. ñu naan ko ilimaani tey ak ëllëg Cheikh Abdoul Khadir Mbacke dëkk bu mu sañ ci Bagdad la ko tuddee maa ngi ci nuyu suma xarit sëriñ Khadim Lo Gaydel borom ndam moom it Bagdad la tuddee dëkkam jàngale boobu rek doy na sultaanul awliya moom mooy buur waliyu yi ci jamonoom de ak bu dul jamonoom yàlla yor teraanga di ko jox ku ko sow te yàlla ko ko tuddee te yàlla ko ko tuddee ndax maamam rasulullahi moo ko ñaari ñaari ñaari bàmmeel yi ñaari amul mm-hmm. Mm-hmm. waaw lu am solo la laaj bi nga laaj yenn saay xër mm-hmm. dina tax nit ëppal wax la boo xamante ni waxu sénégalais la rek. mu sénégalais dañu xër. fanatique. waaw fanatique. Mhm. surtout fanatisme baaxul. Mhm. baaxul mooy ëppal c'est-à-dire euh, benn Bagdad la benn benn euh, xabru la am. Mhm. ma Bagdad. ci zawiyaam bi mu doon jàngale fa la génne àddina doomam Abdul Wahab moo ko jullee moo ko rob moom Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ay mayam euh, dafa fekk ni yu mel noonu ndax ci toog ci télévision lañ nekk lu compliqué boo koy expliqué nit du ko xam par contre am na ci ahlul kunti yu ku ñuy wax Seydi Moussa Moulal Qabrayni loolu nag xam nga karaama ki ko fekke mbaa ki gëm la boo toogee ci télé di wax li la neex mm. mënoo ko justifier ka nekk France moo tax ñun ñi nga xamante ni xam nañ ko ñun dañuy gis nga dem fii gis bàmmeel bi dem fii gis bàmmeel ñun la ñaar ñëpp kenn ki la mm. waaye Cheikh Abdou Qadir Jeylaani moom benn bàmmeel la am te teewul mooy buur wàlli wi man damay ñëw ci kiraama yi ndaxte ci ak dundam ñu ngi wax ni euh, kiraama yi bëri woon na torop ba nit ñi sax dañoo demoon ba yenn yi sax duñ ko doon wax bi mu dëddoo tamit kiraama yi continuer ba tey parce que moom nee na nit ku tafu ci moom mhm. ak koo xam ne da nga ko gëm mhm. wala kuy dund mhm. euh, ci moom ci lim fi bàyyi boo demee bay am ay jafe-jafe moom day taxaw moo xam nu muy génne léegi ci loolu am na ay exemple yu bëri yoo xamante ne xam nañ ko ci boroom xam-xam yi mooy ki nga xamante ne dafa yoroon euh, ñeenti ñeenti chameau yi nga xamante ne dañ ko réeroon fi mu demee di sàmmi mu jékki-jékki xalaat ko ñaan ko mu am ku sol lu weex ñëw taxaw fi fi fi ñi mu àndaloon nekk mu mhm. dem jëli ko mhm. euh, kiraama yooyu ba tey mhm. loolu ba tey am na loo xamante ni lu bari loo xamante ni def na ko ci yu mel noonu lan nga ñu ci mën a indil ci ci loolu waaw seulement ci suñuy kilifa dañuy tere di wax ay karaamam mais dinaa la wax rek li tax yàlla may ko ko ku nekkal yàlla mu nekkal la ci turam yi dafa am xawsu rawdu mooy xettalaakoon bi. lu mhm. ustaas noonu la. Mhm. <laughs> mooy xettalaakoon bi kii xettali. sauveteur sauveteur c'est ça. rawdu mhm. moom mooy xettalaakoon bi. Cheikh Abdou Qadir Jeylaani garaat bi mu am moo ko may. fu taalibeem mën a jaaxle. fa tabarakallahu boo woowee turam mu woy la. ci lépp nag waaye fexeel ba nekk ci dëgg mooy condition. bul tooñ fexeel ba nekk ci dëgg su fekkee taalibeem nga moom bul ragal dara waaye bul tooñ sa charte mooy bul tooñ te nekkal ci dëgg bul tooñ bul fen waaw te bul sàcc waaw lépp ci tooñ la boobu léegi doon ñu dellu sawaat tuuti mm-hmm. Bagdad mm-hmm. ndax euh, yaa ngi doon expliqué jaar-jaar bi léegi bi mu yegsee ba Bagdad mm-hmm. naka la fan dundee alhamdulilah. waaw mhm. torop. ndax bëri ay jal ay jaloux. torop. Mhm. naka la dundee Bagdad. ak la mu fa jànkoonteel yëpp. metti na. loolu metti na lool dalam. Mhm. ngay njëkk a jàng foofu. bi muy dugg Bagdad rek. fekk na am na ku fa nekkoon koo xamante ni ci droit. ci yàlla. ci ñuy wut yàlla. fekk xutba bi mu ngi fa ki ko war a remplacer du dugg. Cheikh Jili ku déggoon ndigal la xadar la dajal ci bunt bi mu daal ni ko doo duggagum Bagdad di nga xaarandi xoola respect bi mu àndal ci tarbiya toog na ci buntu Bagdad sept ans moom Cheikh Abdou Khadir Jeylaani juróom-ñaari at juróom-ñaari at ndax ndigal ndax ndigal toog di wër fu mu wëreelu amul sax fu mu dëkk moom Cheikh Abdou Khadir Jeylaani lépp luy tax nit mën a def zuhd maanaam indi dëddu. dëddu daan na ko def yalwaan sax def na ko. Ah. te defu ko pour daara daf koo def pour rey nafsom bakkanam. orgueil ci wax rey rey rëy gi ne ci nit. Mhm. moom la doon rey tër ko rey ko moom Cheikh Abdou Khadir Jeylaani nekk fa juróom-ñaari at ba jot ndigalu dugg mu dugg bi mu duggee biir Baxdaad ci zawiya bi nga xamante ni tey jii fa ko suul borom zawiya ba bi mu bi bi Cheikh Abdou Khadre Jilani di ñëw yooyu yëpp ci nattu yi la bokk daf ko fekk mu tombeek ñuy tëj zawiya bi mu ni tëj leen bunt yi te fay làmp yi mais nag xamul woon ni Cheikh li mooy ñëw mm-hmm. bi mu ñëwaatee ci nattu yi la bokk mu tëdd ca buntu zawiya ba tawte tawte fa tawte bu méttee métti jóg ak yére yi ñu tooy mm-hmm. boroom zawiya ba bi mu ubbee yam ci moom rek daf ko sonk parce dañ ko doom sama hmm. te pourtant moom am nay doom waaye xam na ni moo ko war a doom mu ni ko doom sama yow mii tilim ak sa yére yow mii tooy ak say yére yow mii ñëpp jàppe ku tey ñun la waaye doom suba yow la tey ñun la waaye doom suba yow la Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ku bañi ñu dégg la na toxu yow la nit ñi ñëw di wut ci yow xam-xam yow yaay ki ki nga xam ni bu nit ñi werantee yow yaa leen di atte ci xam-xam yow la Bagdaad yëpp yaakaar ëllëg ak si biir soo waxul kenn du wax sa woote commencé ko léegi te bu ragalati dara hmm? moo tax si wa maa qultu xatta qiila li qul wala taqaf waxuma lu dul dañ ni ma waxal te bu ragal Cheikh Jéli nag fa la commencé di taxaw ci mbedd yi di woote du ko mu neex nga woote. <laughs> déedéet. maam Cheikh Ibrahima Fall nee na yaa nuy moom a gën a wóor maa leen di moom. Mm-hmm. nit ñi ñëw ni la ñun ñoo ànd ak yow moo gën kaay leen ma yilif leen. te te jamono boobu si la les Abbasides. Mhm. am muy dawlal Abbaside. amoon doole ankay ah, dominé adduna bi. Mhm. amirul mu'minin bi da ko wekk. Cheikh Jéeli parce que bokk na ci tarixa bi soo gisee sa mbokkum taalibe sëggal woyof nekk koo xamante ni danga koy wan suufe mais bu dee ku lay jaay àddina na ko xool ak bët yi sax ci yow. parce que da nga jàpp nit ni kii jaamu yàlla la comme man valeur bi ngay xool ci nit rek mooy ku ragal yàlla. waaye du juddu. du ja du nenn lu mu toll dëggam gi fu mu ko fekk daf koy wax parce que nee na moomuma ko yàllaa ko moom. dëgg gi dëgg te kuy wax dangay am ndigal am gi mu am ndigal moom moo tax nag nit ñi mujj bi nag mboole mu bàbbee ku sopp ko. fu ne nit di fa jóge ma wax la ni da mujj nañu baax daan ñu jël 400 savants. ni leen dee leen déglu yéen lii mooy seen rôle déglu Cheikh Abdou Khadre Djeylani lu mu wax ngeen bind. ñuy fekkee jataayam yi nga xamante ni fa la daan jàngale ndax ndigal la jot ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa abataahu la ko daan woowee hmm. doom sama parce que du lépp la ñu mën a wax ci télévision hmm. waaye ndonom ci rasulullah yi dafa wér sallallahu alayhi wa sallam waaw mu ni ko takallam waxal waxal mu daal ni ko man nan lay waxee ak euh, éloquence bi waa Bagdad am mu ni ko ngaangal mu ŋaang mu tifli ca gémmiñ nga juróom-ñaari tifli sidna Alioune maamam defal na ko daal ni ko lu yonent bi def du ma ko ëppal juróom-ñaar la def juróom-benn lay def Cheikh Jéli nag commencé woote mujj bi zawiya bi dafa xat ba ñu toj ko yokk ko ndax mbooloo ndax mbooloo dama wax la mhm. tuubal na ci nasaraan ak ay yahut lu ëpp cent mille personnes moom Cheikh Abdou Khadir Jeylaani te du la defar rek bàyyil da lay defar pour nga dem defari àddina nga dem defar kii dafa wax sànq sultaanul awliya dafa ni sama ndëggal tànk xadami hada la ruxbati kullu wali taala jël naa sama ndëggal tànk teg ko ci loosu bépp wali Abu Madian al Ghawzi euh, mi ngi ko fekk euh, Égypte xam nga nu mu def dafa sëgg ñu ni ko waaye li ngay def nii lan la mu daal nii damay dëggal waxu koo xamante ni gisee guñu dafa ni tànkam dëggal tànkam teg na ko ci loosu bépp wàlli na koy wan ni nangu na fekk doom ji di ko wat tiit ko bàyyi ndax dama la gaañ mun ko déedéet déedéet laa dara ma teg tànk wallaahi ma mu sëg xam nga kii dafa fekkee jamono mm-hmm. waaye kële fekkewul jamono imaam Junayd da doon xutba mm-hmm. di xutba ba yàgg rek mu ni nangu na wax nga dëgg nangu na ci biir xutba ci biir xutba bi mm-hmm. la daloon daaloon Seydina Omar ca xutbaam ba ca Sariya ba muy dem tëjub montagne ba mm-hmm. te mu naan ko maytul montagne mm-hmm. te ñu ko bokkul ci xutba bi Basiram moo ko won ca fa mu ne imam Junayd di daat nii euh, dafa am koo xamante ni wax na ci baatin te dina waxi ci zaahir nee na tànkam teg na ko ci loosu bépp wàlli moom lay nangul muy Cheikh Abdou Khadir Jilani te xam nga Junayd di Sali ñii nekk ci yoonu yàlla ñu ci bari moo leen jàngal suluk soobu fa tabarakallahu imam Junaydi seede na ko Abu Madian al-Ghawzi seede na ko ah, Ahmad Badawi seede na ko mhm. fa tabarakallahu ak ñu bare bare bare bare bare ci arifinamillahi léegi euh, Bagdad gi mu ne woon. dund mhm. nga ko sànq jafe yi nga xamante ni euh, dund na ko fa. Mhm. lan nga ñu si mën a wax ngir ñi ñuy topp xam ne nittu yàlla yi faw ñu am ay natt yoo xam ne suñu borom da leen koy teg ñu muñ ko ngir mën a yegg si yenn daraja yi. daan na dugg ci kër ñu dàq ko. mooy li danoon maamam rasulullahi rek. sallallahu alayhi wa sallam. demoon na sax ba ñu defee ni ay crise la koy def te bañ a moo tax mu koy def bañ bu ñu ko dàqee dafay taxaw muuroo ay mbubbam moom Cheikh Abdou Qadir Jilani mm-hmm. wa tabarakallahu lépp di wane ni man jaamu ko yàlla la parce que mën ngay xool ci xool mm-hmm. ak di gis liñ lay def mën na indi réaction mm-hmm. te moom yàlla ne ci kanamu moo tax lu yëngu rek moom day defee ni yàlla la fanaana bu yàgg gisoo accident ñu baal ma ci kàddu gi li la mujj ni téel boo maytul moom rek ngay wax fiir na ma fiir na ma wala fiir naa ko fiir naa ko ku fanaa maanaam ku dem ba àgg ci yàlla jeex ci yàlla jeex ci yàlla takk ci yàlla lépp loo gisati rek dangay ngay yàlla la da nga naan sañu ma koo dóor di kii jàmm yàlla la melentaan sañu ma koo rey dafa mission bu muy doxi mhm. lépp nga yërëm foofu la tolloon moo tax la nattu yey bari bari bari bari bari amul benn bu mu ci mës a def ndax fu mu ko nar a dalee maamam rasulullahi taxaw ci kanam mu xalaat ni lii daan na dal maamam yonte bi demul Taïf wala lii xool Taïf ak ni mu méttee xale yu ndaw ya ak ñu wérul ñi xaj ya ñu koy sànni ay xeer di ko yuuxoo di gën a garaaw malakul jibal wàcc ànd ak Jibril ni ko ñii moom bàyyil ma régler seen problème ñaari montagne leen seq bàyyi ma fengal rek taayif mokk mu ni ko defal ndànk ñii nag mën naa am seeni sët ak seeni i sëtaat am ku ci génne di kennal yàlla ci kaw su yéene naa loolu sama borom mm-hmm. yàlla jéggalal ñii dañu maa xamul Cheikh ji loolu la doon te mooy doon nay rasulullah moo tax fal awliya u jami an taxta raayatihi la Serigne Mohamed wax ka ruslima jaddihi mubidul awsaani c'est-à-dire maamam rasulullahi moo jiite yonent yëpp ci ron tànkam la nekk waaye wali yëpp ci ron tànk Cheikh Abdou Khadir Jeylaani la ñu nekk terewul kenn baax mhm. waaye yàlla yoon mbiram di ko dugal fu ko sow méthode bi mu utilisé mhm. ku ne xam ne jamono jooju Bagdad mhm. lu ne moo fa doon am man xëcc leen. Mhm. teg leen si siraatal mustaqim parce que dafa woyof. Ah. nit ñi boo leen wanee nii la toll rek ñu bala fa. yàlla wax na ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. walaw kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. ba noppi mu doon leen jéggalul. waaye nag fa iza azamta moom a ci neex. fa tawakkal ala Allah fa tawakkal ala Allah. Cheikh Jéeli noonu foofu la àggoon. daan na diisoo daan na maslaa. waaye bu dara desul nag nga nar a dépasser les bornes te loolu moom mooy wàcc ci charia ak sunna mu jëflanteeg yow. Mm-hmm. moom Cheikh Abdou Khadir Jeylaani fekk na maamam rasulullahi liggéeyal ko lu mu war a liggéey mu war a def continuité. Mm-hmm. xam nga état continuité la. lu wér. bi mu ñëwee fekk loolu nekk fi rek Cheikh Jéeli dafay socci loolu mais maslaa bi mu amoon ak nit ñi moo ko may loolu. Mm-hmm. daawul gëdde taalibeem sax yaa Seydi la daan wax sama sang sa taalibe. Cheikh Jil daawul lekk moom kese. amoon na xale bu mu jël boo xamante ni lu nu ko jox da koy jënde ay ay ñam di séddale. xaalis daawul fanaan këram. ku mel noonu nit ñi bëgg la nit ñi boo bëggee jubóog ñoom danga leen di bàyyi ak seen alal ak seen jikko. nit ñi. ku bëgg a jubóog ñoom danga leen di bàyyi ak seen alal ak seen jikko nit attanu loolu bu la mayee tey may la suba suma xarit ca Jóob Mbay nee na geneen géer gu la may bu la meree wax la ko mbaa mu xoolee la ko dëgg la <laughs> ku du rasulullahi rek mënu ko mbaa ku mu defar buñ la mayee tey suba nga ñëw ñu may la mm-hmm. ginnaaw suba ñu dañ naan ci dafa soof mm-hmm. Cheikh Jéeli dafa donn maamam rasulullah ci loolu da ngay ñëw mu may la suba mu may la di la neexal ginnaaw suba mu gën laa neexal ginnaaw ginnaaw suba mun la kaay ma may la <laughs> est-ce que <laughs> kooku mooy Cheikh Abdou Khadir noon noonu la def ba convaincre baxtaat gi mhm. foo nit ñi bëgg la mhm. am na ñoo xam te ne bañuñu la dañ laa xamul wallaay télévision ngay liggéey jékki-jékki ñu ni Oustaz Assane mi ni mu ma soofee wala Baye Cheikh mi ni mu ma soofee dañ laa xamul ñu la miinee rek bëgg la parce que kenn mënta bañ baatu ginnaaw mais ñi ko daan wax yëpp ñu ci bari kerse googu moo leen jàpp Mm-hmm. dañu ñëw bi ñu ko miine. Mm-hmm. rek dañu ko bëgg. Mm-hmm. tabarakallahu mujj nag mu woo leen alhamdulilah. parce que fekk na leen ñu nekk ay jullit. ñooñu koy jafe ñoo waxal. tuubal na lu bari ci ay fan mi fekk na leen ñu nekk ay jullit. yàlla la leen doon wan. fa tabarakallahu bi ñu ñamee cafka gi. mais dootuñu bëgg ku lut ki leen ko wan. dafa am ay mbir yoo xamante ni yàllaa koy maye. dem na ba ci mayam yi bokk na ci. ku daan romb rek ci buntu zawiyam bi nee na foo ma woowee ma fi mu daan jàngalee. est-ce que léppam dafa mujj yàllaa ko garanti. moom Cheikh Seydou Abdou Khadir. et bi foog nañ ci borom xam-xam yi nii euh, li tubaab tuddee travail vertu liggéey. Uh-huh. itam daf ko daan jàngale. ba pare jàngal ko ay. kenn bañ a xaar kenn xam nga njàng bi gën a baax mooy li ngay li ngay jàngale nga ne ca. waaw. am na koo xam te ne koy xool rek jub. Mm-hmm. dañ ko fekk muy liggéey. ndongo yi dañoo ñëw jàpp ci rek. Mm-hmm. tàmm na coono. Mm-hmm. te du ko yàqal dara ci jaamu yàlla. Mm, mm, mm, guddeem yëpp ak yaamu lay. fay taxawal màng guddi gi. macha allah. dinaa fi la moom Cheikh Sidi Abdou Khadir Jeylaani fi ñu demee banga xamante ni nit ñaa ngi lay ziar. am na ci ñu bari foofu la ñuy la ñuy la ñuy delloo ginnaaw waaw commencé naan waaw man li ma doon wut am na ko ah boobu la defaraat la xasaayam macha allah jamono boobu waaw sallallahu alayhi wa sallam jullil ba tànk yee neewi yaa Aïcha ni xanaa du yow lañ jégal sa bàkkaar yu njëkk ak yu ya lu mu ci rek afalaa akunu abdan shakura ndax war maa nekk jàmm buy sant Cheikh ji loolu la doon macha allah macha allah allah bëggoon nañu itam mu ànd ak ay ak ay cant ndax guddi gi laaj na ko n'est-ce pas Cheikh Thierno waaw euh, dëgg sunu euh, mbokk yëpp bég nañu ci waxtaan bi euh, ku lim waaye ñu ngi jot ay réaction yu bëri nga xam ni sunu ay yaay sunu ay kilifa te ñi ñi seexal ci barkeb euh, Cheikh Abdoul Khadir Jilaani defe naa ci réew mi bëri na euh, du ñu lim waaye bu ca kanamee ñoom faaw rek ñu ndokkeel leen ndax guddina terewu leen euh, àndandoog ñun ci télévision Futur Média déjà 2h18 mooy doog jot waaye ñëpp a ngi àndandoo ci waxtaan wu neex bi nga xamante ni Cheikh bu mu ngi ñu koy may ci télé bi kon ñu bàyyi. sunu xel ci nga ñaar dab na Cheikh Abdoul Khadir Jilaani de. waaw waaw ñaar dab na ko. Ah, gis nga daaraam uh-huh. tolloon na fii ba Mermoz de romb Mermoz sax dem mais bu yëkkatee kàddoom ñi ci ginnaaw yi gën a dégg ñi ci kanam da ko doon ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma doon xaar deuxième ñu ñëwaat kon kay loolu il faut ñu ñëw parce lu doy waar la <laughs> hmm. ni mbooloo mi toll. Eh, mhm. bu yëkkatee baatam wallaahi. wax nga lu am solo ñëpp a koy dégg. boo bëggee xam ne nan la julli di tolloon ci jamonoy rasulullah du ko mu neex nag. nga déedéet déedéet mais su waxee. <laughs> ndànk lay wax. Mhm. waaye baatam yàllaa ko daan jottali. Mhm. wax na ko maam Ibrahim mu ni ko ah, man su ma wootee nan lañ ciy jote mu ni ko wooteel waaye may jottali. wallaahi. wooteel waaye may jottali moo tax nag baatam la yàlla defoon loolu moom Cheikh Abdou Khadir Jilani buy wax wax ju teey la yoroon mais baat bi ñëpp ko daan dégg mm-hmm. ah, daan nañu wax ni ñi gën a sori mu ngi mel li nga nekk fii ñu nekk Mermoz ñooy gën a dégg ñun ñu toog ci plateau bi mm-hmm. loolu yàlla mayoon na macha allah macha allah kon euh, ñu déglu tuuti sunu euh, xarit yi et puis àggali waxtaan bi ak Cheikh bu Diop ci euh, télévision Futur Média bay bu bismillah macha allah alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi la ilaha illallah sultaanu lawliyaa tolloowulam ñoom waaw waaw rawantewulam ñoom sëriñu sëriñ si tolloowulam ñoom waaw waaw ba yàllay ci la ko jël wuutaleeg ñoom mu juddoo Seexu Jeyli dafa woor ànd koog ñoom waaw waaw waaye keroog mu juddoo sama waa ji dafa woor ànd koog ñoom waaw waaw kon nag soo gëmul nga laaj sa naas bambañee yëgul muloo dafa ko samuloo ci baab bi tugal rawante wul ak ñoom sultaanul awliya tolloowul ak ñoom rawante wul ak ñoom waaw sultaanul awliya tolloowul ak ñoom ni jëy lay président ku nangook ku bañ sa xidmati ku samp Seexina Seex Abdul Xaadir Jilaani ba yàlla yebalee malakul mawt muy jël si roog taalu beeg jëyli jëyli felru ya muy tuuru ay Seexina Seexina Seexina wa imaamina wa wasilatina Seexina Seex Abdul Xaadir Jilaani ki moo doon maam Rasuulallaahi mentor Cheikh Abdul Qadir Jilani sagal na tariqatul Qadiriya Qadir soo macha allah macha allah macha allah loolu defe naa euh, euh, sedd na xol ñu ngi ci ndokkeel nag sunu euh, sunu xarit yëpp bokk na ci sunu benn yaay bu nekk Foundiougne moom démb ba tey mu ngi xaar émission bi mu ngi tudd Adja Marie Diène yaayi Babacar moom bi ñu ko seexaleeg léegi yàggul ñu ngi koy ndokkeel bu baax di ko ziar Fari Mangane itam soppee Cheikh Bou Diop la. Mm-hmm. taalibe Serigne Fall boobu ñu ngi koy ziar moom tamit fàttewuñu Minatou Aydara moom it sët la xam naa ne jotaay bi kontaan ci loolu ak suñu yaay Pimpin Penda Guissé euh, nekk ca consulat bu euh, euh, New York bu bu Sénégal ñu ngi koy ziar bu baax ak kullu koo xam ne rek yaa ngi rafetlu jotaay bi Ajatou Vassor Mamou Vassor Binta moom tamit ñu ngi koy ziar bu baax c'est vrai que ñun Sénégal am nañu lépp pour réussir mm-hmm. yenn saa yi ñu mel ni ñuy dof doflu ci mm-hmm. njàng mu bëreeg mm-hmm. diplôme yu bëreeg fekk on a on a ce qu'il ak ak ak xam-xam yi imaginez Bagdad ba Sénégal ni mu soree waaye ku tedd ki def na fi loo xam ni buñ ci sukkandikoo mën nañu am li tubaab tuddee tuddee une bonne gestion de la cité ba ci wàllu politique jàngal nañ ñu lépp cheikh lépp mhm, mhm, mhm. wallaahi am nañu lépp am nañu lépp macha allah xanaa ñu bañ a xam niñ koy doxalee rek waaw mais lépp ngi wala fàtte fàttelu wala dof dof li moo wax léegi loolu rek la fàtte xaju fi moo fi xaju waaw loolu nag daf lay wan loolu daf lay wan liggéeyu mag du réer on a les écoles qu'il nous faut dañ jubóog yàlla xoolal xoolal kañ la génnoon àddina macha allah te njabootam ñi ngi Sénégal ñoom ñooy des siècle xoolal loolu te pas-pas la ñu topp pas-pas bu jógee Bagdad di dox di dox di dox ba yegg ci Sénégal. ba ñi ci jot ñëpp jot ci. xam naa ci kanam dinañ ci dugg incha allah. am na ñu bugg am na ñu buggoon participer. waaw Adja Cheikh Yaman Albis bu Cheikh na Cheikh Saad bu Cheikh Khoutou. député. macha allah ak Cheikh Adramé mu Cheikh na mu Mbacké. Mhm. bëggoon na dugg. Mhm. ak Adja Cheikh Mbayte Diop. bi mhm. Fabien doon wax. yaayam ñoo ko daan woowee. a Adja Cheikh Aminta Ndiaye Jeyli bu mu feebaree njaboot gi di xalaat di kii daf leen ni demuma ñun ko lu tax mun ne Cheikh Abdou Khadre ñëwul ko daan tàntal nag kaamil lay wàcce doom jooju moo ko relevé moo borom këram alaaji Pam a alaaji euh, Pam Mooda Ndiaye jour bi mu leen jour bi mu leen ne Cheikh Abdou ñëw na tey laay dem ci la demee booy wéeru wéerul ci ko xam ne dafa wéeru ci sunu borom. Mhm. doo daanu da ngay am cëslaay te mag ñi dañu jeexoon ci sunu borom. Mhm. li tax mag ñi amoon mhm. pas-pasu xasal tee loxo seex bu rek. ni ni niij loxo Cheikh bu ni niij sa loxo ni niij euh, loxo ñu ñëpp daal di nit ñi maag ñoom ñuy dëkk àjjana. te bi yàlla tabax àjjana jox ñu ko suuf jox ñu ko brique jox ñu ko béton du fer. ñu am xas xas. ni billaay wallaay taala ay ñii maak ñoomay dëkk àjjana est-ce dañ doxoon seen bopp yàlla li nga wax moo am li si mag ñi mag ñi la ñu nekke woon ba tey dara tuxuw fi dara tuxuw fi ku jox yàlla sa bopp mu téye la mu téye te xam nga li ci gën a am solo mooy jàngale da ciy nekk ba pare may yii ma la wax yëpp mu am ko moom mi ngi wax ni may jarul tiitaru. may waaw ndax ku ñuy may ku lay may du yàlla. dëgg moo tax kenn du yaakaar yàlla di ñaan nit. nee li mbay yi bari bari yàlla la ko jox mu ni kon bul wan nit ñi ni nii laa toll nee na ku ittewoo wane sa bopp ci rëy rëylu ak di wane ni nii laa toll nee na da tuuti ci bëtu nit ñi. Mhm. ay moom moo wax loolu. ba pare nee li coow li bari bari. nee na wax yii ma wax yëpp yëpp yëpp waxuma ko lu dul dañ maa jox ndigal ni ma waxal pour nit ñi xam ni nga mel pour yàlla nit ñi mën a xam à peu près ni nga mel ci xaqiqa mm-hmm. Cheikh Abdou Qadir Jeylaani nee na tiitaru maa ngi koy tere képp kuy suma taalibe wane sa bopp maa ngi koy tere kuy suma taalibe mm-hmm. wa man qadasathu nafsuhu bi takabburin mm-hmm. tajriqu sahiran fi uyunil aqilati maam Dieye lii moo tax léppam nee na balaa ngaa wax tala wax dara. nee nañu xaar ba ba jëm ba dem yow mal xiyam. Mm-hmm. nee na foofu la coow li nekk nee na àddina foofu di ngeen ma baal sax. Mm-hmm. xam naa dama ni woon du ma woy bay bu dina ma ci gunge ma wax leen loolu tuuti mm-hmm. ndaxte keroog bi nga xamante ni dem nañu yowmal xiyam dafa am lu ma ko wax ma ni àddina bàkku fi teel na ndax bu saa lu waay ma ne waayam mu feeñ fa ay ca def leen ni bu saa mu feeñ fa ab lu waay قطب الملا قائلا أنا رقاب جميع الأولياء خدمي أغلي فتعتع له كل بالشرق وبالغرب رقابا سوى فرد فأوقب بالأصل ملك له تصف في الكون نافذ بشرق وغرب الأرض والوال والصال سراج الهدى شمس على فلك الأولى بجيلان مبدى هؤلاء بلا أمر يتمة در دان يغدو ولاية بغيج بغيج على جد الوجود والمشري أنا صفي شاب قادر جيلان xanaa déggoo Serigne Mohamed Bouna li ma la doon wax léegi mu ni ba mu jógee day takk der sàkku yàlla buur ba ko fal ndey ju baax jëbék di ko wax doomu man demal te jubal daldi jël ñeneen fukk ci gooro jox ko jooy ni demal àndal ak rabbi sa boroom bul di fen toujours jubalal xutbu naa ko déet sama yaay asbiri lillaahi muñal su ma demee ba ñëw di nga xam kon ni dégg naa sa ndigal ummuhu ndeyam di ko wax dénk naa la yàlla demal jëy li daa bu ànd aki leer gaaya dog di xam bëgg a jël yóbbalam ba yàlla ni déet xutbulaahi bañ na fenul gaaya bokk jooy sukku boole jox ko seeni alal boobu ndongo bés bu matee laamu naa ni deesu ko bel waa quartier général ana soppe Cheikh Abdou Kadir Jeylaani chers amis musulmans particulièrement auditeurs et auditrices téléspectateurs téléspectatrices de la GFM. Permettez-moi de m'exprimer dans la langue de Molière pour faire à peu près comprendre qui est Cheikh Abdou Khadr Il y a des hommes dont les œuvres ne seront jamais ensevelies. De ceux-là, nous citons Cheikh Seyd Abdou Khadr Jailani, de Moussa Diagne

Ta mission n'est pas d'être laboureur ou ta mission n'est pas d'être berger. Troublés, par ce miracle, ils s'enfuient sur la terrasse de leur maison d'où ils aperçut non pas le décor familier de sa ville, mais le mont Arafat Aladji Thierno Ndiaye avec des milliers de pèlerins en train de dire labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata la à la suite de cet événement, il décida de se rendre à Bagdad pour apprendre le droit islamique et compléter son instruction. Sa mère lui remit dinars qu'elle cousit à l'intérieur de son vêtement tout en lui donnant comme recommandation de jamais mentir ou de s'écarter du droit chemin. Sur le chemin de Bagdad, leur caravane fut attaquée par des bandits, des bandits qui dépouillèrent tout le monde L'un d'entre eux demanda à Cheikh Abdul Khadr s'il possédait quelque chose. Le chef lui révéla qu'il avait 40 et lui indiqua l'endroit où il se trouvait. Les bandits étonnés. Étonnés lui demandèrent pourquoi il n'a pas gardé son secret. Le jeune homme prédestiné leur dire J'avais promis de ne jamais mentir ou de m'écarter du droit chemin. Les bandits ébahis. Ébahis. Se repentir, restituèrent tout le butin et se convertir. Quel enseignement Oh, Pape Quartier général, quel enseignement Un musulman, un chrétien, un être humain doit toujours dire la vérité. Rien que la vérité, quelle que soit par ailleurs la situation. Je suis fier d'être cadre. Nous sommes fiers d'être cadre, disciples de Cheikh Abdou Qadir Jilani. Savez-vous ce que ça m'a apporté, le fait de chanter Cheikh Abdou Qadir Cheikh Abdou Khadir Djeylani m'a apporté ce qui est palpable et ce qui ne l'est pas. Dans l'ordre palpable, je dirais que je vis bien de moi. Et dans le registre du non palpable, chanter Cheikh Abdou Khadir Djeylani a renforcé ma spiritualité, ma foi en Dieu, son prophète Mohamed paix et salut sur et mon dévouement envers Borom Ndiassane. Oh mes amis de quartier général, Aladji Thierno Ndiaye, par respect s'il vous plaît, s'il vous vous levez-vous, levez-vous. chantez avec moi la gloire de Cheikh Abdou Jilani aca wax leen loolu Moussa Tabawe lu waay ma ne waay ci lu jaral lii moo waral jotaay bi le tey waa Sénégal ak waa diaspora bi kuy seetaan TFM benn lañ lay laaj mooy ndax sama way wi neex na leen neex lañu waa léegi xanaa dooyal ngeen dafa sañul woon bañ a wax. macha allah ndax kuy wut dara ci sa kilifa tey ndongo te bëgg lu baax. foog nga def yëfi taalibe. Mm-hmm. raam wuti ko. mënta ñàkk dëgg noonu moo tax ma dugge noonu ci moom. di nuyu Serigne Ibrahima Kounta maréchal Bouch Abdou Kadir Jeylani. macha suma mag. suma sëriñ suma xarit. baax di nuyu Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Aydara. Mm-hmm. tey moo ma préparé. li ma joxoon document la tàmm ma yor kayit di wax maa ngi ni mënuma ko sax xool boo dee artiste doo ci jaaraat c'est ça en fait mais di am solo mooy maa ngi bég ci Chérif di la wax ni njàng mi am na solo jéem nañ cee nab nabi mhm. lu ci baax <laughs> nga xam ni sa barkey maam la lu ci bon nag <laughs> sa xalifa bee ñu tuddee yuunaan mooy grec yi <laughs> suñu masaan di yónni nit ci bërëb dañuy xool ki ci gën a su waxee lu baax ñu ni waa ji moom jàmbaar la tey ji su waxee lu bon ñu ni bettuñu woon ñu joxe am nañ ci ay euh, commentaire xam naa dinañ ci euh, jàll euh, léegi nii waaw j'aimerais juste j'aimerais juste am yu ma ci yu ma ci yokk ndaxte am na sunu ay sang yoo xamante ni itam ñu ngi réagir bokk na ci jouet na ay Aïdara euh, Ould Mamine moom ñu ngi koy ziar bu baax waajur euh, la ci Adja Bane Diallo suñu yaay jooju euh, moom it bëgg lool waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu waaye rawatina waa kër Cheikh Djili di ziar tamit Cheikh Beya Ould Takki Mhm. Euh, Cheikh Al Khalifa bu Ndar euh, moom it euh, ñu ngi koy ziar bu baax ak waa kër Cheikh Sadbou mhm. waa Ndar yooyu mhm, ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi réagir te te kontaan nañu ci jotaay bi ak Cheikh bu dafa passionnant ba nga xam ne waxtaan bi lu ma ko doon laaj lu gàtt rek la est-ce que am na ouvrage boo xam ne mën na tax tey jii koo xam ne bëgg nga yokk wala nga continuer li nga xam ne mooy enseignement wu cheikh bu tedd bi nga mun koo am pour le sénégalais lambda pour ki toog rek bëgg àggali loolu bari na bari na déjà léegi dara dara am na clip bu ma ci defoon boole kook euh, ñi ko monté ñi ko joué film bi ñu nga nekk ca Indonésie xam moom taalibim dafa nekk partout dans partout bind na téere yu bëree bëri mais léegi jàng dafa yomb. Mhm. internet moo tax. tout est là te ci def liggéey bu am solo. Mhm. maa leen ciy félicité. macha allah di kontaan wax dëgg yàlla. macha allah kon léegi loolu ku dugg rek internet loo bëgg a xam ci moom di ko xam. voilà xam li muy gën a comprendre ce qu'il a fait dafa def comme grand corps malade dafa def slam. non euh, <laughs> du ci loolu sax. mais si si waaw si li Kebs euh, posé laay laay euh, duggaale posé waale aussi quelques questions bëggoon naa xam Cheikh bi si. yan thème la doon faral di bind. Mhm. boobu di benn ñaareel bi mu di euh, lan mooy impact wërd hadria ci am ci amu nit. Oh. ak euh, lan mooy euh, élément yu wërd yi ak kañ lañ koy def. ak aussi benn question boo leen ma ko permettre rek lan mooy origine tabala bi ñuy gis fii si si si si xadriya bi. Mm-hmm. rek laa amoon lu ma lee laaj. laaj nga lu am maana macha allah am solo kii dafa mel ni ci daara ji la am solo la laaj. am <laughs> solo li ma journaliste bi léegi di la question de question elle est pertinente. Oh. sa question aussi est pertinente pertinente moom mérite day. dama ni sama yaram dafa daw ci sa laaj. macha allah. Hmm. tariqatul qadriya xëy na léppam kenn du ko wax ci kaw lépp baax nag amul dara luñ ciy nëbb waxoon naa la mabniyatun alal kitaabi wa sunna mm-hmm. waaye loolu nga laaj moom la xaadiri yi jëfoo mm-hmm. weesuwul istixfaar mm-hmm. astaxfirullahi alazim maa ngi wax ci contrôle u oustaz Assane weesuwul laa ilaha illallah malikul xaqul mubin weesuwul uh, salaatu ala nabi weesuwul xasbunallahu wa ni'mal wakiil am na ñu cay dolli laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zaalimiin wirdu qaadir juróom benni téeméer la ci li ma sañ wax ko yii danga koy def ñeent fukk yii benn bu ci nekk ñaar fukk ci gàttal waaye képp ku koy def saxoo ko qaadir nag tuddoo ko bokkul ak nga ni qaadir laa te fekk amoo sëriñ mm-hmm. dangay am sëriñ bu mat sëriñ mm-hmm. sëriñ bu mat sëriñ nu muy mel dafay tere li yàlla di tere te nekk ca di di uh, di bàyyi li nga xamante ni uh, dafay jëf li yàlla di uh, santaane fa tabaarakallaahu di tere li yàlla bàyyi wan yoon boobu rek dëgg la boobu rek dafa doy fa yàlla pour ku ci dëgg rek raw nga mm-hmm. sëriñ nekkul ci bari yére mm-hmm. nekkul ci mbub mu rëy nekkul ci xam-xam bu bari bu jëmul ci yàlla mm-hmm. ndax léegi ku jàng xam mm-hmm. mais bari nañu jàng di saay-saay mm-hmm. boo jàngee ba pare na nga jub boobu ci charte yi la bokk boo jëlee wirdi ci sëriñ boobu di ko doxal Cheikh Abdou Khadir Jeylaani nee na yow Khadir bi boo ci saxee yi ma la wax nee doo banque déedéet nit ñi xaalis rek lañ bëgg mais waxul di am alal de mais di nga am sutura. kenn du la gis di la yërëm mu ni nag te bi nga xamante ni moo ciy bénéfice mooy njariñ yi nga laaj balaa ngaa génn àddina insha allahu rabbi yàlla dina la wan sa kër ci àjjana mu ni wax ji ma wax nag waxuma ko ngir tiitar nga laaj origine tabala tabala oustaz boo ko tuddee tudd rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye dafa am beneen jagle bu ci xaadiraam xam nga yonent bi ñëpp a xam lool sallallahu alayhi wa sallam bi muy dugg madinatul munawara fekk na jigéen ña di tëgg ay tabala jigéen lañu sax ak i góor di të- ay tabala du du benn tabala de ay tabala xam nga oustaz maa ngi wax sa contrôle a dufu mhm. mooy benn tabala bu mag mhm. waaye dufuuf mooy jamoo bi moom la sama moxam Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu yaqulna nahnu jawaarin daaribaatin dufuufin laysa fi darbihaa dufuuf bee gën a fort dufuuf waaw mooy tabala yu bari yu pluriel pluriel dufuuf mooy pluriel lu bari voilà tabala yi mooy tabala yi ma ko waaw eh, nee na ñu ngi ko teeroo tabala yi ba pare di ko tëgg nag dufuuf mooy benn ànd koog way ànd koog way di way kooku fekke nañ ko fekk nañu tamit ko ko déggul bu baax yaqulna nahnu jawaarin daaribaatin fuufin laysa fi darbihatallahi min isami jigéen ñaa ngi tëgg tabala ya boole koog ni di wax ni ñi ngi koy tëgg Seydi Hadji Malick wax ni seen tëgg moomu mhm. ci gàttal mhm. nee na maa ngi waat ni bàkkaar newu ci tëgg googu ñu tëgg rasulullah Seydi Hadji Malick ne Abdou Khadir Jeylaan lan la wax moom it waaw foofu lay ñëw maa ngi ñëw foofu moo tax ma ni Xaadir daf cee am beneen ruq mhm. la ilaha illallah bi loolu amee yonent wax na ni dee leen siiwale sëy yi ak tabala tëgg nañu tabala ci këram yaay Aïcha ak yaay sa ñoo ko daan ñoo ko doon tëgg Aboubacrine Sadiq dem boole leen ak yonent bi ni ko ñoom Aïcha ak sa ñi ngi tëgg tabala ci kër gi Moustapha Muuñ su feet la woon ni ko daxuma yaa Aboubacrine fa innaha ayyaamu iidin mhm. bàyyi leen yow Babacar lii waxtuy feet la kon waxtu yu fet dóor ci tabala am na solo fu ñu mhm. tàntalee yonent bi dara gënu ko sallallahu alayhi wa sallam c'est nag Cheikh Abdou Qadir Jeylaani. Mhm. kaamil yi jeyli sultaani. maamam rasulullahi. sallallahu catal dundam bi mu desee ñaari at ci àddina. mu liggéey liggéey boo xamante ni maamam da caa kontaan. moom moo ñëw indi benn manto di ko solal. ci saw yàpp. Mhm. ni ko Cheikh Jeyli kontaan naa ci sa liggéey. manto bii ma lay solal. dama lay wan ni xutbu yi yaay seen xutbu. nanga xam ni kontaan naa ci sa liggéey te lii pal gi la yàlla pal man dama cee d'accord man mii samaam danga liggéey nag ba war ñu war laa gërëm maanaam nit koy décorer mhm. yonent bi solal ko burda bi mu taxaw mu jox ko tabala ji ni ko nanga ko feete Cheikh Dieye li yëkkatil boppam tabala ji yéeg ci kaw étage bi dóor galañ bi daal ni dinaa ci nàndal képp koo xamante ni xamul woon yàlla ci bërëb yi mu daan tumuranke dinaa fa dem tuubal leen mu ni dinaa ko dóor dóor bi baatin lay doon dana àgg fu sore sore sore sori daal ni sama tabale yii nag dinañ ko dóor ci kaw suuf dinañ ko dóor ci kaw asamaan tubuuli duqat fil ardi was firnde baa ngi Cheikh Abdou Khadir Jeylaani moom moo ko moo tax nag mu bari secret badar door nañ fa tabale imaam ahmad badawi nee na képp koo xamante ni am nga dégg-déggu baatin boo demee ba léegi galañ bay dóor nee na bi jibril wàccee ak malaka yi ngir dooleel jullit ñi bu ñu dóoree tabale yi mooy mooy effrayé yëfër yi moo tax imaam ahmad badawi nee na wa tabluhum hunaka tulal abadi nee na galañ ba dañ koy dégg ba yowmal qiyaam kooku benn la ci secret ah, gis naa ci benn livre suñu benn président Léopold Sédar Senghor bi muy firi tabale mi ngi ko tuddee tambour de guerre ma ne lu ko xamal badar kooku benn la beneen bi tabala jii nga gis njariñ yi laa lay wax dinañ ci faj dof gëm-gëm dinañ ci duma noon gëm-gëm képp koo xamante ni toogal mu fekk ko ñun ñi nekk ci suñu milieu looy wax nag euh, xamoo ko boo noppee koo koy wax du ko xam dara da koy dund door koo mën a gëm fa tabarakallahu buñ moo tax doo ko tëgg ba mu àgg te gisoo fa ku ñu naan dafa wérati bu saxoo di fa ñëw rek wér dafay daq ay rab. day la ak nanu ma laaj maa ngi euh, sama sama mbokk lébu yi sama xarit lanu ñi Ngor Wakaam ak li ko wër nanuma laaj ba xam bi may door na na ya daan demee mi ngi am ba tey. tabala bu mag bi nu mu tudd. Cheikh Abdou Khadir Jeylaani di mag ci tabala yi dégg nga moo tax mu ni tuubuu lii mm-hmm. damir bi ci moom lay dellu tuubuu lii samay tabala mm-hmm. du tabala yëpp nag mooy tabala Cheikh Abdou Khadir Jeylaani mm-hmm. arab nee na bonbon dafa rond mais bul bul gis lépp lu ron nga defe ni bong bong la. oustaz mm-hmm. kulla kaxkin mudawarun wa laysa kulla mudawarin ka. et puis tous les bonbons ne sont pas bons c'est sûr. Serigne Mansour daan kulla mudawarin ka ka. <laughs> lépp lu ron rek lépp lu wërngalu rek ma di beñe déedéet. de lépp lu ron du beñe. kon ndënd yëpp ndënd la waaye ndënd yëpp du taba la ça dépend ci fi mu lay orienté. macha allah macha allah Marianne waaw Marianne demal Mhm. Euh, laataa may ñëw ci sama question euh, dafa am solo macha mhm. parce que dafa am benn wax bu ma marqué boo xamante ne maa ngi ko jëlee si livre Jamaluddin ak Jeylaani. mu ngi bind dajale. Mhm. Euh, ay jikkowu Cheikh Abdou Khadre Jeylaani ak yi mu daan wax. mu dajale ko ci livre mboobu li ma ci gën a marqué. mbokk na ci li mu wax ni. Cheikh Abdou Khadre Jeylaani dafa ne daf ñetti mbir dafay perte lool nit. temps mu ne bi ci njëkk mooy nit ki di comparer boppam ak keneen mu ne nit ki tamit euh, di di réccu li nga xamante ne passé na mu ne nit ki na yemale euh, nit nit ñi seen bëgg-bëgg ak seenuk mer mu ne ni ko li ko war a yitteel moo di suñu borom maanaam nit ki nee na bu mu xool nit ñi bu ñu kontaanee wala nit yi bu ñu meree na yemale meru nit yi ak mbégte nit yi li ko war a yitteel rek mooy suñu borom lim ci wax loolu nekk loo xam ni daf ma marqué mhm. te te mu ngi nekk ci livre boo xam ni ñu ngi ko bind ci mooy li tubaab ci télé nekkee ci sa yoon rawatina booy wax ci télé ci sama classe ak tamit bañ a comparer sa bopp ak nit mu ne tamit di réccu loo xamante ne passé na mhm. parce que loolu boo koy def mu ne bëgg bëgg bëgg bëggloo ñëpp mhm. soo koy def da ngay sonn parce que munoo li nga wax doy na doy na oh, wax bi dafa sori xam nga lu tax wax bi sori mooy képp koo xamante ni jeex nga ci yàlla yàlla rek ngay gis mooy li may def wanuma ko nit ñi yàlla laa koy wan gis nga xam-xamu sagesse ma du ñëpp la ko yàlla di dénk mais euh, Souleymane tubaab yi dinañ ko comme le disait Salomon la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse mm-hmm. ragal ki nga xamante ni mooy aji sax dàkk mais foofu lañuy ñuy commencer am xam-xamu sagesse. waaye bu nee nag bu fekkente ne am nga xam-xamu sagesse ñu ubbil la bunt yiw yu bari du loolu nga bunt buntu yiw yu bari. kenn xamul fu muy yem. mais ki koy am mooy ki ragal yàlla. moo tax Cheikh Dieye li moom xoolul meru nit xoolul kontaanu nit mi ngi xool kontaanu yàlla ndax li ñuy def neex na yàlla mm-hmm. parce que dem na ci léppam yàlla la ko jox moom mm-hmm. Cheikh Seydi moo tax jàngaleem yooyu du fay wallaahi nitu wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi may ko mu dem waaw sama question mooy dama bëggoon rek mu ñëwaat tuuti rek si euh, dimension wu Cheikh Abdou Khadre Djeylani ak euh, li nga xamante ne moo di xam-xam parce que dañuy wax ni abu sayit mi nga xamante ne moo nekkoon metram am daf ko li bi muy nekk tout tànk mhm. daanoon na ko jox muy jàngale mardi vendredi ak dimanche boobu mhm. fekk na mu ngi nekk ci école am mhm. ak euh, livram bi nga xam ne bind na ko Hunayya su ma juumulee nga xam ni uh-huh. waaw li nga xam ne mooy njàngalem Hazali boo gisee livre livre bi rek sa xel daf siy dem mhm. mais li mu bëggoon ñëw mooy euh, le fait que moom ñi nga xamante ne dañu gëmoon soufisme gëmoon tasawuf ñi ko gëm ak ñi ko gëmul maanaam ñi nekk ci ñaari extrémité yëpp dañoo nekkoon ñoo xamante ne dañ ko nanguloon donc mu bëggoon rek tuuti nga ñëw ci loolu ndax yaakaar naa ne euh, ñetti nit ñoo fi dégg sultaan donc te sultaanul euh, tul sultaanul euh, awliya ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko koy tuddee mooy ñi nekk xaadar ak ñi nekkul xaadar donc nangu boobu nga xamante ne ñi gëm ak ñi gëmul ñëpp nanguloon nañ ko bëggoon naa nga ñëw ci loolu ñi ko ko dul wax it mooy ñi xamut ah, yàllaa ko ko may. li yàlla maye li yàlla maye jaam da ci dul mën dara fa tabaarakallaahu dafay am ci zaahir ak ci baatin nii ñu ko xamee di ko waxtaanee te fekk xamuñu ko. Mhm. nit yàlla yi nekk nitu yàlla ñooñu ko gën a xam. Mhm. xam nga boo nekkee ci armée nit ñi xam nañ ko quartier général ngeen tuddee fii. Mhm. boo nekkee ci armée nga dem quartier da gis ku. boo gisee waaw boo gisee sa chef rek da ngay foofu la mokk gi di amee. Cheikh Abdou Khadir Jeylaani nag nekk nit boo xamante ni li tax mu tudd sultaanul awliya bokk na ci te mënoon di maslaak ñëpp. wax nga ñi ñiy dund soufisme ak ñi ko dul dund ñëpp la ameloon jàmm. kenn mënu koo jëm ci charia kenn mënu koo jëm ci xaqiqa. baaru charia moom moo nekk ci ndeyjooram xaqiqa moo nekk ci càmmoñam képp ku ñëw mu ni la bu la ci neex kay fay moom Cheikh Abdou Khadir Jeylaani. Ibnu Taymiya. tolérance. Ibnu Taymiya. moom mooy sëriñu ah, Abdul Wahab mi nga xamante ni moom moo jiite Ibadur Rahman Ibnu Taymiya dafa seedeel Cheikh Abdou Kadir Jilani nee na bi li ko gën a marqué bokk na ci bi saytaane feeñoo Cheikh Abdou Kadir Jilani xam nga kuy bew mënul loolu mm-hmm. feeñu ko ni ko may yàlla mu ni ko lu xew mu ni ko lu ma araamaloon ci yow rek daganal naa ko mu siggi xool ko ni ko jógal fii yow mi yàlla rëbb mu doon euh, lu ñuul kukk ni bëpp ci suuf iblis nag ni coow di ko xool ni ko nooma xàmme mu daal ni ko bi njëkk mooy euh, leer gi bi muy ñëw dafa am saxaar te yow da ni ma ana allah yàlla du la wax may yàlla danaan la may sa borom ana rabbuka la lay wax man may sa borom la lay wax beneen bi ci des yàlla du daganal ba du araamal ba noppi ñëw di ko daganal Cheikh Jeyli da ngay déglu li may bu baax Cheikh Jeyli daal dégg Cheikh Jeyli toog Iblis ni ko ca dëgg dëgg dëgg gaa yi doo seen morom Jeyli muuñ ni ko boobu bu ko fi bàyyi